fan yi nu génn réewum Sénégal yëngooti na ci mbir mu doy waar lan moo xew Miss Sénégal 2020 ñu koy wax Ndeye Fatima Ndione nekkoon Miss Fatick moo def ay révélation yu fracassante yu doy waar yoo xamante ni vraiment euh, askan wi yëpp dañoo yéemu ci yooyu kàddu ndax lan la euh, euh, participer woon na Miss Sénégal daaw mu jël ko ndax moo nekkoon Miss Fatick ñu koy fàttali waaye nu gis ren Miss Sénégal 2021 bi absence am ba Miss Sénégal 2019 ki ñuy wax Alberta Diatta moom moo ñëw sax maanaam ngir passé euh, couronne bi ki nga xamante ni moom moo nekk Miss xel yi yëpp commencé jaaxle lan moo xew waaye nag ci xare la koo xam ne mënuñu ko ñàkk ba ñu tudd di sunu jigéen di sunu consœur di Ngoné nekk fële Dakar ba fan yi mu def benn entretien bu exclusif entre yaayu Ndeye Fatma Dione ak moom soxna soosu di faat ma Dione lan lañ ci jëlee comme ay xibaar moom mooy ay tuuma lan moo xew nee na dañ ko violé kan moo ko violé ah en tout cas dañ ko drogué woon euh, ca période gi nga xamante ni sëkkoon na maanaam partenariat collaboration ak Miss Sénégal maintenant euh, Amina Badiane mooy kan mooy ki nga xamante ne moom moo jiite mbiru Miss Sénégal parce que moom mooy promotrice bi et puis moom mooy présidente maanaam comité d'organisation bi ànd ko ak ay collaborateurs am interpellé nañ ko ci. lan la wax moom euh, jàpp na ni miss bi elle est majorée magum jëmm la kon buñ ko violé moom la neex nakate wax yooyu nag dina ko coûter cher ndax réseau bi enflammé wu euh, vague de soutien jug ngir jàppale Ndeye Fatma Dione parce que Amina li mu wax tegu ko fenn warut a àddoo noonu ndax dafa mel ni dafay def li tubaab di wax apologie du viol apologie du viol nag mu mel ni dafay défendre maanaam tey jii ni mbirum viol te loolu defe naa Sénégal lu nu criminaliser la te du dëgg yoon tey jii nii mu di ko défendre am na mouvement féministe ay organisation féminine yoo xam ne jug nañ ngir àddu fas yéene euh, euh, maanaam jug apporter seen soutien euh, Ndeye ma Dione léegi nag li mu wax dëggal wala du dëgg am na wala amul justice tamit nee nañ duggul na dugal na dossier dugal na loxoom ci dossier bi ndax saisir nañ parquet bi kon procureur bi xëy na ñu ngi xaaraan di fii ak ay fan fan la nara a sutee mbir mi ak fan la dër gi di nar a féete waaye loolu yëpp nag enquête la nar a doon tax dañ koy bàyyi yoon mënuñu ci àddu mënuñu ci indi ay leera la kon li nu mën a jàpp mooy fee gi am mooy que ni. Euh, wax na ay tuumaam yoo xam ne jëmale na ko ci comité d'organisation bi waaye leneen liñ ci seetlu tamit mooy dafa mel ni bi mu waxee euh, dafa doon opportunité ak maanaam occasion pour d'anciennes Miss ak ñi nga xamante ne ni amoon nañ ay partenariat ak euh, Miss Sénégal euh, comité d'organisation bi ñoom tamit commencé def ay révélation yi fii di enchaîné wu ku ci nekk di wax sa jaar-jaar ku ci nekk di wax li nga dund maanaam ñu dem ba gis ni ndakate dafa am mafia goo xamante ne ni dafa làqatu ci mbirum Miss Sénégal bi mafia gu doy waar te itamit sax foofu dinaa fa. Euh, profité wàllu occasion euh, am koo xamante ni nii euh, amoon na téeréer gum ci bindoon ci wàllu mannequinat mu di taskatu xibaar ñu koy wax sëñ Mansour si Cissé xëy na. bu ko nit ñi liiroon wala bàyyoon ko xel wala ñenn ci miis yi xëy bu ñuy dugg ci milieu bi tamit dinañ bàyyi xel maanaam milieu gi ñuy dugg maanaam réalité yi ci nekk mais malheureusement euh, defu nu ko mbaa xëy na bu amee ñu ko ci def tamit appliqué ñu ko ndax tamit nekk na milieu bu vicieux goo xamante ne lu nekk nga ci ci wàllu alcool ci wàllu drogue ci wàllu euh, maanaam façon gi ci nekk ci proxénétisme ci ay placement ndax ñu bëri la ñu jiñ soxna Amina Badiane mooy que ni euh, dafay làkku ci Miss Sénégal di ci di ci encaisser ay millions ci ay travers ay sponsor am ay tamit mais di ci profiter di collaborer ak borom yi doole ak borom yi alal yoo xamante ni dañuy mujj récupérer xale jigéen ñi di leen sàkk wala di jë di di di di di sëkk ak ñoom loo xamante ne ni euh, dafay xaw a doy donc miss yi tamit ku ci nekk def sa révélation ku ci nekk wax euh, société bi tamit nit ñi ci suivre actualité bi ku ci nekk wax sa gis ku ci nekk wax sa xalaat waaye nag li jar leeral mooy que ni ba tey euh, mënu jàpp ni viole am na wala amul waaye li ci mën a am mooy que ni maanaam Ndeye Fatma Dione ubbil na buntu. maanaam ñu bëri ñoo xamante ne ay miss lañu woon te partenaire lañu woon ak maanaam Amina Badiane mooy comité d'organisation Miss Sénégal ngir nu wax seeni i nakar ngir nu wax loo xam ne dund nañ ko léegi nag ndax violé nañ ko wala violé wuñu ko duñ ci àddu waaye loolu ay kàddoom la yoo xam ne moom la engagé mais nag kan moo ko viole ñu fàttali ni am na ci doom goo xamante ne actuellement ni am na juróomi weer yaayam jaaxle na ndax yëkkati na ay kàddu daal koy jàllale et tamit euh, askan wi tamit ñoom i tamit ci seen wàllu yërmande yërëm nañ ko lool ci situation ndax njàngam yàqu na ci euh, lu bëree lu bëri lu nga xamante ni tamit diggoon nañ ko ko parce que encore une fois ñu def taxaw seetlu euh, liñ ko diggoon ci nuñ ko waroon jox bi mu gañee daaw mel na ni lu bëri jotu ko ci et tamit daf ko coûté cher parce que tamit elle avait enchaîné des sorties médiatiques pour réclamer ses dus li nga xamante ni waroon nañ ko ko jox mais malheureusement pour elle yëf yi fii la mujj mujjee ëmb ci tegu viol moo ci tegu ci ay kàddoom léegi nag fan la nar mbir bi nar yem lan la ci yoon nar a àddu par rapport ak dossier bi dinañ ci dikk ak yéen gën ko yaatal ci ay rebondissement mais pour le moment ñu jàpp ni lii xew mooy que ni miss bi mu ngi ci situation bu critique ndax fi mu ne nii am na doom violé nañ ko xamul kan la mënul a wax kan mooy papam Amina yëkkati na ay kàddu yoo xamante def na apologie du viol donte après jéggalu na waaye taxul nu baal ko yoon daal la ñëpp di sàkku mu dugal loxoom ci mbir mi. saisir dossier bi ñu situer maanaam responsabilité yi ngir ñu gën a mën a am lu nu leer ci dossier bi et tamit am na ñoo xam ne tamit ñaxtu nañ wax ni Miss Sénégal fa mu newoon newatu fa parce que am na loo xam ne miinuñu ko ci sunu culture miinuñu ko sunu aada dëgg gi fan la nar feete lan mooy dëgg dëgg maanaam li nga xamante ni moom moo làkku ci mbir mi moo nekk ci mbir mi nu ngi koy xaarandi loolu yoon xëy na mën nañu ci dimbali ñun ci sunu wàllu liggéey en tant que taskatu xibaar dinañ dikk ak yéen ci yeneen jotaay ak récap actu nga xamante ni moom mooy seen euh, émission gu bees gii nga xamante Sénégal dafa leen koy amal chaque week-end samedi dikk ak yéen ci actualité phare semaine bi faram fàccee ko fàttali leen ko waxtaan cee ak yéen ngir gën gën a mën a am li nga xamante ni moom moo ci di gën a leer di leen eh, eh, jaajëfal wasalaam.